mi FM dal leen ak jàmm seen émission sans filtre muy jotaay ndaw ñi fii ci réew mi FM lay amee mercredi bu jot 15 jàpp 16h ñu fi waxtaanee lépp lu euh, soxal ndaw ñi tey Abdoulaye Dione lañ fi dalal euh, moo di président association Talibé Ayam euh, ma jox moo du Fall kàddu gi mu nuyoon teg mbokk déglukat yi balaa ñuy dalal gan gi. nuyu la Sylvie di nuyu mboolem ku ñuy déglu fu waay mën a nekk ci biir réew ak biti réew di dalal suñu gan gi di nuyu suñu auditeurs yi auditrices yi di nuyu Mor di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Adama. muy ki nekk ci direct ci internet bi muy Mor Fall Adama nekk ci technique bi. Euh, di jaajëfal ñëpp nag euh, di wax ni suñu émission bi doorati na tey di mercredi di bis bu mag bi euh, képp koo xam ne bëgg nga ànd ñun mën nga ñu ci 88 628 84 84 wala nga woon ci 88 plus 1. mbaa nga woon ci 88 628 86 86 plus 1 yow mi nekk bitim réew mën nga ñëw woo ci 33 841 21 40 mooy numéro bi nga xam ne boo ko tapee daa dugg ci biir émission bi kon Sylvie jox rek nga daal dalal gan gi ñu daal di tàmbali mhm. waxtaan bi laata ñu dalal gan gi Modou actualité amul actualité nag bi fi gën a fes mooy li xaw fële ca mbuur mbuur dañoo wax ni benn doomu Cheikh Yérim Seck doomam boo xamante ni si ay atam mu ngi toll ci ñaar fukki at ak benn jàpp ñaar fukki at ak ñaar moo fa yàkkataan gone gu jigéen goo xam ni yàgg nañoo ànd bokkoon benn lekkool di dem ak a ñëw ñi nag nee nañ coroom la woon maanaam gelam boo xam ni yàgg nañoo ànd mu di ko tëdde ñu yàgg siim seen mari ngàññi ñi ne déedéet c'est la première fois keroog la ko mës a tëddee waaye li ñu jël ci ay vocal gone gu jigéen gi am na fu mu ko naan euh, fan nga nekk ak fan laa lay fekk ndax fi ma la daan fekk laa lay fekk gone gu góor gi na ko waaw maa nga foofa kon mu mel ne du lu bees yàgg nañoo siim maa ngi vocal yi mu mel ne mu mel ne du lu bees yàgg nañoo siim seen mari ngaañ ñi comme ni ko ñëpp waxee kon ñu continuer rek directement ci actualité waaw euh, la fii suñu plateau sans filtre euh, yow yaa yor association la wala mouvement dina ko leeral taalibe ayam mhm. ñi ngi kontaan loolu bàyyi la nga ñëwante mbokk auditeurs réew waaw Sylvie déjà damay commencer par di leen remercier ci invitation bi di nuyu auditeurs yëpp euh, yi di déglu réew mi FM di nuyu tamit samay xarit samay mbokk yi nga xam ne tey ñoom ñëpp ñu ngi concentré wu ci émission bi. Mhm. waaw comme ni nga ko waxee euh, Talibé Ayam bon on nous appelle association souvent mais ñun dañu gis ne concept lañ ko rek concept boo xamante ne ñëpp xaj nañ ci. Mhm. amul tënk amul tënk amul dara. Mhm. donc euh, Talibé Ayam concept boo xamante ne la dañ ko euh, dañ ko créer pour euh, muy dimbali bépp ndaw boo xam ne dafa am jafe-jafe dund dafa am jafe-jafe jàng dafa am jafe-jafe boo xamante ne dafa da koy da koy sonal ci ci ci kaw suuf. Mm-hmm. donc euh, motal mënuñu motale lépp gaa. mais dañuy dañuy jéem rek ba fu ñu suñu loxo yam ba seen loxo kañ ngeen créer concept boobu Talibé Ayam bon ça fait cinq ans ci ren mhm. biñ ko créer mhm. donc euh, def nañ plusieurs mouvements plusieurs euh, événements mais lépp lép cinq ans avant cinq ans yi nag ñu ngi doon doxal ay affaires mhm. ci même concept bi mais utaluñ ko woon tur d'accord euh, lu tax nga tuddee ko Talibé Ayam waaw xam nga ay taalibe ngeen waaw déjà ay taalibe lañ ñun vision bi ñu am mooy képp kuy dox ci kaw suuf taalibe nga. tax taalibe ayam mooy taalibe je waaw un taalibe je donc taalibe bi mooy booy lan mooy taalibe yow mii taalibe nga ci rajo bi nga nekk moom taalibe la ci li muy liggéey keneen taalibe la ci li muy def parce que képp koo xam ne yaa ngi tarbiyu ci dara pour am ci dara taalibe nga ci loolu donc àdduna mën naa wax na ñëpp ay taalibe lañ donc foofu la ñu xoolee. Mhm. moo tax ñu jël suñu bopp tuddee ko taalibe te boo waxee taalibe sa xel li muy jëkk dem mooy kii gën a suufe ci ci ci ci te c'est xaw na jafe. ci déggin waaw xaw na jafe ci déggin mais noonu lañ koy xoolee boo nee taalibe rek dañ naan dañ en général dañ ñuy marginaliser. Mhm. xaw ma ndax yéen a ngi bàyyi xel li may wax bu baax. taalibe yi dañ leen jàppee ñi di yalwaan. ñi nekk ci daara yi ci mbedd yi ñu wax ko te dee mais ñi tekkiwul dara ci réew mi. Mhm. te pourtant kii ne ci eh, bureau bi di liggéey taalibe la. Mhm. ndax bu weer bi dee mu ngi daw ci ginnaaw salaire. salaire boobu taalibe salaire la. taalibe salaire bu rëy la sëriñ bi salaire la de. xaw ma ndax yaa ngi dégg nag fi may waxee. <laughs> waaw mu ngi bu baax. <laughs> waaw donc daal moo tax ma considéré ñun ñëpp ay taalibe lañ. Mhm. ñu jël affaire bi tuddee ko taalibe am. Mhm. yéen yi euh, formé association bi yaa ko jiite ñaata ngeen ndax bëri ngeen. waaw bëri nañ trop macha allah. ñaata bëri nañ trop amuñ sax lim. parce que comme ni ma ko waxee c'est concept. concept bi nag ñëpp xaj nañ ci concept bi li ñu jàpp mooy tey jii bu ma waxee ak yow dugg nga ci concept bi parce que concept bi du dara lu dul dajale yow sama sëriñ man li ñu am. Hmm. ñu indi ko yóbbu jox néew du doole donc li ñu am ci ci ay partenaires. lu ñu am ci ay xarit presque nos amis sax lañ leen di woowee bañ nañ ko les amis de Talibé AM mm-hmm. toll nañ ci noo xamante ne foo dem tey ci ci ci ci Sénégal foo dem ba génn Sénégal sax am nañ ci ay ay adhérents mm-hmm. donc euh, lim bi moom sakan na trop. yan activité ngeen jot a teg lan ngeen jot a defagum. waaw déjà def nañ euh, ay journée des talibés bon journée bi ni ñu koy tëralee mooy dañuy invité souvent ay benn daara boo xam te ñun ak ñoom ñooy passé journée bi yëpp. dañuy añandoo ndékkeendoo reerandoo jaxasook ñoom day am ay consultation ci ci journée bi am ay ay jeux yoo xamante ne dañ ko indi mhm. indaale tamit suñu parce que lépp lu ñu loo gis suñu xarit la donc indi suñu xaritu médecins yi ñoom ñoo leen di consulter indi suñu ay xarit yoo xamante ne dañuy liggéey ci wàllu xale mhm. ñuy foog ñoom di leen defal éducation indi ay sens ñoo xam dañu leen di sensibiliser tamit par rapport ak yu bëri yu am ci réew mi donc loolu benn la sinon dañuy def ay ndogu dañuy def aussi ay kit korité kit tabaski yoo xam ne dañ koy defar ñëw ba sa kër jox la ko wala ñëw ba ci daara bi jox la ko parce que liggéey ñu ak daara yi kese mm. donc dañuy liggéey ak ay pouponnières donc y a même pas deux semaines euh, une semaine sax laay wax demoon nañ fi benn caravane Kaolack boo xam ne case des tout petits bu gànjaay la lañ demoon yóbbu fa ay matériel didactique ak yooyu en même temps dem euh, pouponnière Kaolack yóbbu fa ay couche meew participer foo ak xale yeeg yooyu. Mhm. donc mhm. euh, yéen li ngeen di maye foo leen koy jëlee ndax da ngeen di def appel wala seeni partenaire waaw déjà li ñuy njëkk a def mooy par si ñun la ñuy commencer. campagne de collecte. waaw mais collecte bi si ñun lay commencer man mii ko jiite maa njëkk jël li ma am ñëw teg ko di woo samay xarit ñu ñëw mais tout temps. Euh, pour la première fois sax mën naa wax ñu am ñenn ñu ci ñu ci ñu ci dugg mais d'habitude c'est juste des des amis ñooy collecté bu ñu lancé collecte bi. Mm-hmm. ñooñu ñooy ñëw ku nekk indi sa yére bi nga amoon kër ga kii ñëw indi benn meew sa doom amoon ay yére ay jouet ñu dajale ko après ñu xool fi ñu koy yóbbu. Mm-hmm. am na tamit ñoo xamante ne dañuy participer di nga gis nit ku la woo ne la ah gis naa sa affaire bi nga def ci Facebook par exemple. dama bëgg a bi comment je fais tu l'expliques mu ne la man bokk naa ci concept bi boole ma ci. moo tax sànq bi ma laajee ñaata ngeen man la mënuma ko mënuma ko wax. Mhm. donc euh, sinon aussi on dañuy créer ay t-shirt souvent loolu mhm. moo gën a bëri sax li nga xam ne mooy mooy source de revenu bi. parce que dañuy créer t-shirt ak ak kii moom la ñuy jaay di di ci am xaalis. Mhm. mais amoo leen ay partenaires ay ONG yoo xam dañ ay entreprises. ne lu ñuy def ñu ngi ñu ngi ciy dugal seen loxo. bon. ONG amaguñu sinon am nañ benn kii bu tudd débrouillard benn organisme la tamit on peut l'appeler comme ça wi bu nekk Canada donc ñooñu man maay liggéey ak ñoom mais bu ñu ñëwee souvent dañuy indaale ay dons yoo xam ne dañ ma naan dugal ko ci taalibe ayam bi mhm. bu weesoo loolu comme ni ma ko waxee bii passé nii rek on a waa C3S mhm. ñoom jàppale nañ ñu ak benn euh, librairie bu tudd Moukat. Mhm. boo xam te ne monsieur Touré moo ko moo koy gérer. Mhm. donc ñooñu jàppale nañu monsieur Touré jox nañu ay ay livres pour xale. Mhm. parce que vu que dañ doon dem ci case des tout petits. donc ñaar ñooñu bu ko weesoo moom. vraiment lépp suñu biir lay jóge euh, bëggoon naa xam aussi Abdoulaye euh, lu waral ngeen jug rek bëgg a jàppale xale yi waaw déjà xam xale dafa nekk lu lu garaaw parce li ngeen def kenn du leen ci fay volontariat. waaw kese vraiment moom. waaw lu leen motiver lu leen pousser ba ngeen bëgg a jug rek jàppale xale yi rek. te yàlla tax yaa ngi may laaj loo xamante ne nag souvent du ci bëgg tontu parce que dafa nekk bu personnel quoi mais je vais faire ah, <laughs> que idée bi fi mu jógee de base mooy dañu dama mës a génn sama bundu kër gis ak ñaari xale ñett lañ sax sax safirula yoo xamante ne ay taalibe lañ. donc kenn ki ñu koy forcer pour mu ñibbi mu ne du ñibbi. mu ñibbi fan seen kër. si daara bi daara moom mu ne dee du ñibbi. gars yi wax jëm kaw jëm suuf mu ne du ñibbi bon ma ñëw fekk ñeneen ñi di ko xoqatal pour xëcc ko mu dem ma arrêté leen ne leen lan la ñu ne expliqué ma boo gisee nag ñu ngi ñu ngi sedd ñoom ñëpp benn décembre la woon ñu ngi sedd di kotkoti soluñu sax yére yu normal moo man leen lu xew lan la ñu ne ma kii de dafa war a ñibbi ma nee na dee du ñibbi man ko lu tax du ñibbi bàyyi leen jàmbur ma laaj ko après il m'a expliqué mu ne ma. dafa motalul lu mu war a yóbbu ci daara bi te xam na ne bu duggee ci daara bi tey ma yaramam dina tàng bon ma laaj ko ban daara la ak yooyu mu ne dee du ma ko wax et c'était normal parce que yaakaar naa ne bu ma ko waxee ma dem foofu di ko plaidel bu ma génnee tamit day metti ci moom mm-hmm. donc du coup man ma dugg kër ga am quelques yére yu ma xawoon am rek as ci di ma am ma jël ko déjà jox ko mu sol ak téeméer la doon la waroon yóbbu mais kii téeméer teg ko ci loxo ma bàyyi leen nag ñu jiitu dox nañ lu yàgg ma topp seen ginnaaw ba xam daara bi la après nag laa ne pourquoi pas ma dem ci daara boobu xool comment faire pour liggéey ak ñoom ba tey jii yi ñuy teg ci kaw xale yi. daara boobu ban la. de ma boobu moom du ko mën a wax mm-hmm. <laughs> waaw. Dakar la nekk. Eh, waaw mën nañ jàpp ne Dakar la nekk daal mm-hmm. ba léegi yaa ngi liggéey ak daara léegi maa ngi liggéey daara bi. mais côté maltraitance yooyu xale yi ci biir daara yi. yéen mhm. doo leen ci def dara wala yéen da ngeen di may ay don rek. non ñu ngi ciy jéem ñu ngi ciy jéem parce que comme ni ma ko waxee xam nga ñun tamit euh, fi ñu mën a yem rek la ñu yem mais bu dee wax bi ñu ngi koy wax bu dee tamit li ñu am ñu yóbbu ko ñu ngi koy am mais en même temps ñu ngi teg ay projet yoo xamante ne day jàppale peut-être daara yooyu ñu xool moyens yi nga yi ñu mën a indi ba tey loolu wàññeeku. parce que boo wax sëriñ boo ci waxal lim lay tegal mooy foog ma am lu ma dundalee xale yi te sama poche kese mënu ko xale yi duñu ñu fay weer seen baay seen yaay yi dañ leen fii indi dem seen yoon sëriñ yëpp même discours bi pratiquement lañu am donc c'est quoi le problème source de revenu ñun li ñuy xalaat comme bi ñu njëkk a def souvent dañuy bu ñu amee collecte dañuy jéem a teg benn business bu ndaw. Mhm. moo xam da jaay dara ci buntu daara bi. moo xam da ngay ubbi boutique wala lu mu mënti doon léegi bu ñu la ko jéemee financé après yow dañ la naan bu dee xale yi dañu doon yalwaan maanaam koo di financé. borom daara bi daara bi ci boppam la ñuy financé pas oustaz bi bu ñu financé daara bi après dañ lay wax ni yow bu xale yi daan liggéey par pendant bu dee xale yi daan yalwaan maanaam une semaine au moins nañ toog ñetti fan yoo xamante ne buñ ko yalwaan hmm. ñu yalwaan ñaari fan. loolu mooy condition bi. mooy condition bi beneen condition bi mooy xale yi bu ñu demee ba jege wàcce da leen ñuy jox am nañ xaritu menuisier ci koñ bi am nañ xaritu maçon ci koñ bi am nañ xaritu leneen wala sax ñi nga xam ne mën nañ leen dugal école nga jox ñu leen. ñun ñu placer leen foofu. ñu commencé au moins jàng métier parce que li ñuy bañ mooy. Mhm. mu doon éternel recommencement maanaam xale bi jàng ba wàccee dem ubbi daara à côté du am beneen métier lu dul ubbi daara. ubbi daara keneen ki imaginer ñëpp xale yëpp bu ñu ubbee daara daara maanaam nu muy demee. Mhm. kenn mënu ko expliquer. donc daal loolu la ñu nekk di teg ak yeneen projet yoo xam te ne ñu ngi ciy liggéey. Mhm. pour xool comment faire pour jàppale. Euh, daara yeeg xale yi. surtout xale yi nag ñaata daara ngeen jot a financé ba léegi. Euh, amagum nañ ñaar yoo xamante ne financé nañ leen. activité yi commencé activités yi ñu ngi ne te dañ leen di suivre. dañ lay topp bénéfice mi ngi génn bénéfice mu ngi génn dañ lay topp. Mhm. Euh, di la xool di la yónnee sunu ay ndaw ñuy ñëw ci yow ndaw yoo xamante ne sunu ay xarit lañ toujours yu màcc ci comptabilité ak yu ni mel tout le temps dina am ku ñëw buy ñëw nag du la yëgal day xëy rek ne la damay seet affaire fu mu toll. ñun ñi sax duñ ko yëg. Mm-hmm. man mii dinañ dem ba ñëw woo ma ne ma dem naa ko ma ne ko ndax mu ngi dox ñu ne ma waaw ma ne ko tant mieux. loolu lañ ci soxla. Mm-hmm. Modou Fall ma jox la kàddu ki rek. nga jàngat mbir mi. mu mel ne indil nga ma tey indi ngeen sama émission de. <laughs> waaw daara la. Mbadou maga maga tey moom indi ngeen sama émission te xam naa pour mu wax ci. Mm-hmm. dina jafe mais góor góorgóorlu nag ba wax ci sama kam kàttan ndax. Euh, damaa yëg daara. Mhm. yëg gu ma ko yëg tax na. Mhm. su ma gisee ku koy taxaw rek. Mhm. su ma sañoon dama koy toog rek di ko déglu. bon Sylvie daa nga dalal ay gan mais tey moom gan gi nga dalal. jàmm képp la fi am ak tawféex. bu ba muy ñibbi gan ma sa dalal fi nag nee na si wa émission jeex. <laughs> mbaadu <laughs> waaw bon Abdoulaye dañ lay jaajëfal njëkk. ñu wax ni ñu mel ni yow rek lañu ñu war a déglu. sànq wax nga lu am solo muy. daara ji mooy ñi gën a suufee. ñu ñu jàpp ne tekkiwuñu dara ci réew mi mhm. te ñuy lépp réew mi mhm. mbaa xam nga ni bi réew mi yëngatoo euh, mois de mars ba nar tàkk doomu daaraa ko fay dëgg la leer nañ muy Serigne Mountakha Mbacké mhm. yàlla yàggal ko fi lool te wéral taxawaayam amiin léppam daara ji la dëgg la mbaa xam nga ni saa bu réew mi jaaxlee nekk ci kiris daara jee koy réglé leer boo demee ci marché bi alal yëpp daara ji la daara ji la ah kon boo doonee ndaw bis jot nga bàyyi sa yitte yëpp gis lenn ci daara ji tax nga ne damay taxawu daara ji. Mhm. donc yaa ngi lay déglu de. Mhm. te donc dañoo mën a sot. xam naa loolu. waaw te daañu la sotal. <laughs> incha allah fàttali la tuuti lan mooy daara. Mhm. man ci daara laa laa amee lépp. fa laa xamee lépp. dama xaw a seexlu sax keneen beneen nit boo xam ne jaarul ci daara man dama ko ci daara laa xamee lépp fa amee lépp. sant alhamdulilah. Euh, daara comme ni nga ko waxee. du rek bërëbu noggatukaayu gone. ci wolof daara du bërëb boo xam ne dañ fay noggatu gone daara dañ fay tàggate ndaw ndaw daara bu njëkkoon hmm. dañ ko jëloon pour mu doon bërëbu éducation bi gënoon gaaw hmm. ci xale bi dañ la daan jàngal alxuraan hmm. jàngal la xam-xam jàngal la ngor jàngal la diine jàngal la diiñ boo fa jógee ñu jàngal la métier moo xam muy métier commerce moo xam mu man doon ndax ñeent juróom yi ma lim ku ko xas am rek am nga métier. dëgg la euh, mag ñi dañ daan dañ daan ngéejawoo ci jël seen doom yóbbu ko daara. Mm. pour yar ba fa nekk. Mm. léegi nag bi mu demee ba taaxi ibbi muy ndakaaru ak yeneen dëkk yu mel ni moom. Mm. moo waral ñu yàq lu bari ci daara ji. daara bu njëkk daan nañu yolwaan waaye daaw ñu sas. comme li nga wax sànq muy xale bi nga xam ne dañ ko naan boo indiwul téeméer. tey doo yendoo jàmm ci daara ji. loolu bees la ci daara. daara bu njëkk da daan yeewu six du matin taal taal matt pour mën a am dara luy xuuy lu leer loo mën a jàngee sa bind bi nga war a tari booy jàng di jàng di jàng di jàng ba mu leer fekk six avant ngay taal da ngaa julli ba pare ngay jàng ba mu leer nga jël sa pot diggante sept heures nga daw yolwaane ji loo ndéegoo maanaam ndékki boo ci jógee ñëw huit ba midi ba une ngay jàng alxuraan onze heures demi ngay teg sa àlluwa ñëw tari soo taree da ngay wàcc dem wutiloo añee ji ku tari wàcc soo wàcc wutiloo añee ji tisbaar julli tisbaar dalay fekkaat ci kër gi nga julli tisbaar gontaat ci njàng mi sa suñu la ba tey mm, mm. su ngoon jotee ginnaaw tàkkusaan nga julli tàkkusaan wàcc ci kaw boo jàngee jukki mm. muy li nga paase ci weer wi yëpp nga di ko nafaraat ci ngoon gi loolu mooy jukki su ngoon jotee nga tegaat sa àlluwa dem ci tàkkusaan gi uti matt moo xam ne moom ngay taalaat fajar boo utee matt ñëw tombeek timis nga julli timis taal jàng moom la ñuy wax jàng marax mooy ibbi xelum dongo bi soo taalee jàng ba pare tombe géej gi paase nga dem yolwaane ji loo reer ñëw tëdd loolu nañ daan yolwaan loo donga kenn mësul sas mhm. sëriñu daara bi yow li donga yiy dundee ci ngay dunde ci la sax njaboot di dundee kon yow dongo yi yor sa dépense ndax bu ñu yolwaane ñëw dañuy teg benn bool bu ngande di ko ci sotti sa njaboot ci la ñuy dund ci la ci la daara jiy dund daara xamu doon hôpital ndax lekk boobu mu doon lekk moo tax dafa dagganoon mm-hmm. te lekk bi it seede yàlla lekk bi tim dafa doonoon lekk boo xamante ni si tànk yaa ngi koy lekk ndax ni nga koy wutee ji du la ma sa jox feebar mm-hmm. lekku tey lan moo tax sëriñ si ñu di leen opéré mm-hmm. ñu dëkkee ci mënuñoo sax am lu paase ñetti doom mooy lu bon li ñuy lekk la muy xale yi ñuy sas ñuy dem di jëli téeméer juróom fukk bu ñu ko indiwul ñu duma leen alhamdulilah nag ba ñu amee ndaw bu mel ni yow nga xam ne ñun donga daara yi la waroon tey kuréel gi nga taxawal man de adhéré wu naa adhéré wu naa te di nga xam ne adhéré wu naa euh, ñun ñoo waroon pare ci biñ jógee ci daara ji ba yëngu ci yeneen ah commencé gis suñu bopp ci yeneen ñun ñoo waroon njëkk def lii waaye ñun tey dinañ xaw am gàcce tuuti ci non du gàcce sax <laughs> ci ci ci ci yow nga ñëw jóge ci benn ci lekkool bi wala nga jóge feneen mm. gis li tax rek nga taxawal daara te pourtant am na lu la ci ump loolu nga gis am na lu ko gën a rëy muy xale bi ñu sas amul lu mu sol ci sedd bi euh, nga génne sa yére jox ko génnee 500 francs jox ko ba noppi topp ko loole tey motivé la ba ngay financé daara ji loolu motivé la ba ngay dem ci daara ji ànd ak xale yi yendu noog ñoom loolu tey ñun ñuy jóge ci daara ji te xam dëgg dëgg dëgg li ci biir daara xam dëgg dëgg fa daara tàmbalee xam dëgg dëgg fa daara sosoo ñun la war wax la nag ni la boo déggee sànq man la daara dafa mën a sot daara sotam eh, tekkiwut ci kane ngay liggéeyal daara rek daara ji di wàccee kaamil di la mm. ñaanal déedéet mm. eh, yàlla suñu borom moo wax ni képp ku jëfal alxuraan lu toll ne luy dee ci chaque fay xamoo fu mu tàmbalee ak fu mu yem léegi lan moo gën a lan moo gën a doon courage nit ki ci doomu aadama bi di jàng alxuraan commencé teg alluwa ci tànkam te yàlla na bu tegee alluwa ci tànkam rek bu ne baasin mim jéggal nañ ko jéggal ñaari waajuram léegi waa ka yaa ki nga xam ne moom dafa taxaw temm ci xale bi na baasin mim bani wala daalin amin ba jeexal téere bi mhm. mu ne du ca yam dama koy jël dugal ko ci atelier menuisier siifur ko mu jàng menuisier mhm. dama koy jël dugal ko ci atelier mécanicien siifur ko mu jàng mécanicien dama ko jël dugal ko ci machon bi dama ko jël dugal ko ci téere bi wala sax su waree jàngaat ma jël ko yóbbu ko ci l'école bi pour topp avenir am mhm. kooku lan mooy fayam ëllëg amul fay bu ko gën a rëy moo tax sànq dégg naa Sylvie te kenn fayu leen yaa jàpp ne kenn <laughs> fayu leen la ñuy fay ndax ku leen di fay yàlla mooy fay ñëpp yéen da ngeen di xaar salaire yàlla amut la cinq yàlla da ngay def léegi mu fay la léegi li ngeen xam fii ci àdduna nit yi yi li ñu xam mooy liggéey bala cinq nga tàllal sa loxo sa directeur fay la mhm. liggéey bala cinq nga dem ci banque bi directeur bi fay la jaarale ko ci banque bi mhm. déedéet yàlla dangay ngay jëf léegi mu fay la léegi moom su la waxee te nëbbu la dina dina la wax ni bi mu tàmbalee activités yi ak tey yëg na ci moom yokkute goo xam ne xamul fu mu ko jógee mhm. xamul fu mu fu mu ko tiimee moom su la waxee kon noonu la yàlla di doxalee ay mbiram léegi nag ci ndaw yi mel ni yow nekk ci dëkk bi doon ay dóorkat lu nañu créé ko <laughs> créé naa kuréel sàngam hmm. nangam laa ciy def hmm. créé naa kuréel sàngam état bi nañu financé kii bi mu dalee wax ba léegi déggoo mu ne état hmm. li muy wax lépp moom la ay xaritam ay nitam ay am di jàmmam kon nag euh, jot na rajo yi ak télé yi saabu ñuy dalalati ñu dalal xeet yi nga xamante ne si li ñuy def lépp yàllay kase la jot na rajo yi ak télé yi saa bu ñuy dalalati ñu dalal genre yi nga xam li ñuy def lépp yàllay kase mais genre genre Ablaye yi dañ leen nëbbu xam nga ñan ngeen ñan nañ gën a sawar ci dalal leen ñu fiy toog ñi nga xam ne saa bu ñu waxee waat ñi nga xam ne dañuy fecc mooy góor jigéen ñi <laughs> ñi nga xam ni dañuy fecc dañuy lëmbal jigéen ñi <laughs> def taatu neen ñi nga xam ni dañuy saagante ndey ñi nga xam ni dañuy jëflante jëf ju ñaaw ñoo ñu nañ gën a mën a xool ci internet bi ñooy ëpp ay ñoo ñu la nit ñi gën a mën a déglu ñooñu nañ ma gën ma mën a gën a dalal ñu woote ci 88 ñoo ñu ñoo mën a toog ci télé bi àdduna bépp maasé di leen seetaan mais gis nga loolu folklore la rek boo xamante ni si soriwul Euh, tàkk-tàkkal mbopp laa koy tuddee maanaam bu nee jëppet tàkkit balaa yàgg tuuti mu fay mm-hmm. ñi nag dañuy tàkk ba faw te duñ fay kon Ablaye premier jàngat moom <laughs> mm-hmm. foofu rek laay tàmbalee di dikkaat ba ci deuxième bi oh, eh, di wax ni daal adhéré wu naa da bokk naa non Ablaye moom tey jàmm rek lay am émission tey bi moom ma <laughs> ko mbaaru jër bu ko neexee sax waxam mën a bëri ndax am na avocat <laughs> doon jaar waaw euh, Modou léegi wax nga euh, sas bi mm-hmm. sas parce que moom sas boobu bokk na ci lu ko motiver ba tax concept bi di taalibe Ayam Diouk maanaam mm. euh, cent francs yooyu ñuy demandé taalibe yi. Mm. lan moo changé ci diggante bi parce que nee nga bu njëkk euh, taalibe yi kenn du leen woon sas. xamuñu ko. waaw je pense que obligation la boo ah, xam ne dañ ne boo indiwul lii lan moo changé ci diggante bi. ci sama xel bu gàtt Modou Fall dafa dafa tënk wax bi sànq ndax daara yooyu muy wax ne tey dañuy liggéey ci euh, da ngay xëy talmat est xam nga ne daara yooyu mu ngi am ba léegi. ci mhm. àll bi. Mhm. Mhm. mais boo jógee foofu ñëw réewum taax bugg a dëkk ci kër gu am ndox bëgg dëkk ci kër gu am courant bugg daara bi nga nekk am télé loolu ay charge la noo koy fayee. dugg daara moderne. daara moderne mën nañu ko woowee noonu. mais gouvernement bi ci programme am na ay daara moderne yu fi jox euh, waaw mais daara moderne yi ci ñu ngi ci dëkk bi dëgg la mais ñaata daara yoo xamante ne ñu ngi ci dëkk bi mënuñ leen woowee mode daara moderne mënuñ leen leen mënuñ leen woowee tamit daara yi nga xam ne ñoo tax ñu sos daara li tax ñuy wax waxu daara. Mm. yéen ci seen euh, kii euh, def ngeen cinq ans jot ngeen visiter daara yi ba xool état bu daara yi nekk ndax. Euh, gouvernement bi la mu doon wax wuyoo na ko. ñun man mënuma la wax ñaata daara laa visité man personnellement. bëri na trop waxuma la dakaar kese de. ban jàngat nga am ci daara yi. man mooy li may wax souvent xam naa dina am ñu ma mere comme d'habitude mais amul solo. man nee naa Dakar amul daara. déedéet. ñu fi xaw ma nu ko mën a tudde mais du daara ay fi nekk ak tappalekat parce que Dakar amul daara amul taalibe lu tax ma wax loolu taalibe Dakar bi da koy sax sarax euh, juróom mu ne la bëggul juróom. Mhm. dëgg la gis naa taalibe yoo xam ne boo leen joxee juróom dañ koy. da koy bañ waaw. àll ba fële ñu baal ma ci ni may waxee àll ba bugguma di wax euh, terme boobu mais foofu di nga sarax nit doo ko jox xaalis te loo ko jox da koy jël. nit dina ñëw nga téye ko ne ko taril ma foo laal ci kaamil bi mu tari ko. Mhm. man gis naa ay taalibe yi yoo xamante ne fii man maa leen gën a jàng loolu noo ko mën a tudde ma ne nag daara Dakar yi noonu lañ mel. Mhm. waxuma ne mais bëri na ci yi ëpp yi ëpp noonu lañ mel. Mhm. moo tax pour man war nañ xoolaat lu bari ci daara yi non seulement fu nekk daara juddu fa. problème la. da ngay gis benn koñ ñun bu ñuy gën a nekk xale koñ bi benn daara la daan am bu ngeen reeree bu desee lépp dañ koy dajale yóbbu ko ci daara boobu bu ñu añee dañuy jël bool bi defar yóbbu ci daara boobu mais léegi dangay jël benn koñ mu am dix daara nga jël xale yi dajale leen ci benn néeg wërgu yaram du fa am bu dee dañuy waxante dëgg rek mm-hmm. wërgu yaram du fa am benn feebar bu duggee ci daara bi ñëppalee la te du yem ci daara bi day génn ba law ci koñ bi. parfois da ngeen ak ay taalibe yu feebar. yu bëri yu dul jeex man taalibe day ñëw ba sama buntu kër tëdd. ndeysaan. li ma lay wax nii deful weer ñëw ba buntu kër ga tëdd fa ñu fëgg sama néeg ne ma am na ku lay seet ma génn fekk taalibe bu tëdd ci buntu bi ma ak sama mag bu jigéen ñoo ko jël dugal ko cooto yóbbu ko. hôpital ñu faj. te ñeneen ak yeneen yooyu benn la ci yu ma cité te boo wootee diw duñ xam sax kan moo feebar boo leen ne am nga sa benn taalibe bu feebar mu ngi noonu duñ xam kan la duñ jóg des fois yow yaay def lépp indiwaat ko ci daara indiwaat waaw moo tax parents yi foofu tam am nañ ci responsabilité bu rëy parce que munu ma jël sama doom yóbbu ko ci daara bi dem toog ci dëkk bi bàyyi ko fa xamoo ci lu mu nekk après ëllëg kooku dem ba màgg am nu mu mel soit nga naan da nga koy récupérer wala fekk c'est trop tard muy noonu. doy na waar doy na waar trop. Euh, euh, yéen seen activité yi est-ce que ci daara yi rek la yem. déedéet ñun comme ni ma ko waxee dañuy liggéey daara yi. yaatu na trop maanaam lépp képp kuy doomu aadama boo xamante ne ñun mën nañ la dimbali. je ak fi suñu loxo mën a yam parce que su souvent nit woo la wax la problème boo xamante ne yow sa bopp da ngay. da nga naan waaw mais fépp foo xamante ne mën nañ la ci dimbali bu dul suñu am-am muy sunu relation wala sunu xarit bi ko mën ñu boole la ak moom mu lijjanti la ba récemment am na benn femme bu ñu contacté bu nekk saint wi moom it je vais en bu ngeen ma ko permettre bien sûr euh, femme bi dafa daf ma ni moom saa yu euh, ëmbee jëkkër ji day dem bàyyi ko ak ëmb bi ba mu am doom mu soog a gisaat jëkkër ji te jëkkër ji du ko wax mukk lu leer bii mooy ñetteelu doomam fi mu toll nii ëmbaat na jëkkër ji dem na femme bi xam naa mu ngi may déglu ëmba ëmbaat na jëkkër bi dem na nee na ma aw ma sax lu ma demee def consultation. Oh. man nag bëgguma dara waxuma ngeen jëlal ma sama doom waxuma dara dama bëgg rek ku mën a jàppale ba ma accoucher ci jàmm loolu kese la soxla mën naa leen wan message femme bi après mu ngi sama téléphone. ku ku ko bëgg a dimbali tamit bu ma contacter dinaa la mettre en moom ak moom directement en rapport ak moom directement ñu dimbali ko waxu fay bi ngay wax sànq dama ci bëgg a dellu siwaat rek ngeen mm-hmm. baal ma. Mm-hmm. ñu li ñuy def dañ koy def te yàlla tax. Mm-hmm. gis nga dem ay rajo dem ay tele nii cinq ans laa la wax de. mu ngi soog a am ren te dañ ma ko forcer. dañ ma ko forcer na ma demal ci rajo yi nga wax demal ci tele yi da nangu ma dem benn tele boobu ba léegi. ci rajo yi rek laa jot a dem. xanaa Bachir la. waaw <laughs> en tout daal forcé nañ ma ko nee ma demal ci rajo yi parce que lii foog nga wax ko nit ñi dégg ko. Mhm. looloo ma indi ci rajo. moo taxit képp koo xam ne def na ci xaalisam li ma lay njëkk wax mooy su may dem ci ñooñu damay bëgg nga ànd ak man ñu dem nga gis ne kat li ma yëkkati jox la ko def nga ko fii. Mhm. looloo tax bii paase ma def caravane ànd ak ay nit ñu dem ci euh, kii bi case des bi ñu gisal seen bopp ñu jël ki ci ligne bi balaa ngay eggali réew mi FM allo allo. salaamaaleykum. aw daa mel ni rëcc na ko. mën na jaaraat ci 88 628 84 84 plus 1 wala 628 85 85 plus 1 wala 88 628 86 86 plus 1 yow mi nekk bitim réew 33 841 21 40 ngay jaar pour bokk ci émission bi. allez mhm. ñu bàyyi la nga yeggal. waaw comme ni ma ko doon waxee rek damay préféré képp ku ci def alalam li ma leen njëkk wax mooy bu may dem àndal ak man. Mhm. looloo tax caravane bi parce que dañuy soxla sa xalaat dañuy soxla sa sa doole dañuy nga ñëw ànd ak ñun rek. Mm-hmm. dem toog lu ci mel ni pouponnière bi. Mm-hmm. toog ak xale yi foo ak ñoom photo yeeg yëpp mu ngi fi. Mm-hmm. ñoo ñu yëg ni tamit bokk nañ ci société bi loolu laa am habitude wax. ndax taalibe bi nga xam ne da koy bàyyi rek muy taxaw nga koy jox xaalis di dem am na leneen lu mu soxla lu dul xaalis. am na leneen lu mu soxla lu dul lekk bi nga koy jox. wala yëre kese bi nga koy jox. moom la tubaab di wax affection dañ koy fàtte souvent mais dafa am solo ci doomu aadama. nga ñëw toog ak moom foo ak moom waxtaan ak moom mu sentir ne ah kiikat kat yëg na ma dafa am solo moo tax ñooñu mhm. tout le dañ leen di invité. Modou Fall jël ci ligne bi ñu ci ligne bi 88 628 84 87 asalaamaaleykum kooku. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi sant bu baax. Eh, mhm. waaw yaa ngi en direct tur bi ak sant bi ak fan ngay wootee. waaw def tournée dama ko bëgg def. mais maa ngi wootee Zac Mbao. ah. maa ngi wootee Zac Mbao. tur bi naka la. allo. waaw waaw ñu ngi lay dégg. ñu ngi lay dégg. waaw euh, sëñ Ablaye. na nga def. maa ngi fi di sant yàlla bu baax. alhamdulilah waaw man dama lay woo pour d'abord. Mhm. gërëm gërëm li ngeen di li ngeen di def li ngeen di liggéey. jërëjëf. bu liggéey boo xam ne liggéey bu transparent la. Mhm. parce nit ki bu la nekk defal sa alal ñëw ànd ak ñu mhm. dem nga xool fi ñuy def sa alal fi nga def sa alal fi ñu fi ñu koy tëddalee. boo mhm. ko bëggee na lu leer. Mhm. Euh, nit ki bu la nekk boo amul alal dem jëlal sa yére jëlal sa mbubb jëlal sa lii indil ñu ko. kooku euh, am na cible bu leer. mais benn suggestion laa bëggoon def mooy que. Uh-huh. pour que est-ce que nekk interface. Uh-huh. interface administrative entre yi. Mm-hmm. ak mairie yi. Mm-hmm. extra administrative ak bon yaa ngi koy def kaa ak hôpitaux yi. Mm-hmm. parce que yaa ngi yóbbu hôpital yaa ngi ciy. mais di gën ko formaliser. Ah? nga xam ne sëriñ daara ji bu problème xale yi amatee problème. Euh, du ko xaar sax ci day day mën na ñëw directement ci yow. ñu am ngeen am partenaires yoo xam ne ko ils sont prêts à à à appuyer. xale bi feebar au niveau des hôpitaux au niveau des kii. ak wutum kayit yeeg wutum kayit bi yeeg ainsi de suite. boobu di benn fànn deuxième fànn nag mooy que xale bi bu jànge ba wàcc. loolu mhm. nga xam ne que fi mu nekk war na insérer wu. Mhm. am na école de formation professionnelle yoo xam ne que war ngeen leen approché aussi. Mhm. pour que ne serait-ce que en cours d'histoire. mu am quelques taalibe yoo xam ne dañ leen di jël di leen former su métiers yi nga xam ne que xaw na gaaw tuuti. parce que je parle je parle que su ma jëlee par exemple mën nga def foie bu defee benn foie mën a réparer prise d'air mën a réparer Eh, lu bon bon mu mën a yor boppam. Mhm. maanaam ñoo xam ne dañuy def un peu de un peu de mécanique ñu yor def leen dans des ateliers yoo xam ne atelier formel yi la. mooy mhm. atelier yoo xam ne atelier métier. waaw. dañ leen suivre ah. Mhm. def def jéem leen ñeneen ñi aussi ñu jéem leen defal benn comment ça s'appelle alphabétisation. en français et en et en wolof aussi. dëgg la boole ko li ñu am ci daara ja. rien pour les préparer ñu mën a intégrer carrément. daal euh, di active. Mhm. Mhm. merci. waaw loolu loolu aussi sama xelal def def baax. parce que bi ngeen demee Kaolack maa ngi ànd naa ak yéen. Mhm. li ngeen def Kaolack. ma rafetlu ko lool. gis naa li def Sën ko lool. fàttali ñu tur bi ah. fàttali ñu tur bi. tur bi waaw. waaw tur bi dama ko bëgg a def sëñ bi. waaw amul problème amul problème lebal nañ la ko ñu ngi lay jaajëfal. loolu euh, na solo waaw xalaat bi am na solo lool. jërëjëf. voilà mu mel ni am na wax na loo am solo Sylvie. Mm. waaw loo xam ni. suggestion la. vraiment waaw kenn amul. tudd ci teg non maa ngi koy maa ngi koy jël. waaw ay suggestion la vraiment. Mm. Mm-hmm. Euh, yoo xam ne daal mm-hmm. baax na torop mm-hmm. waaw kii déjà bokk na ci taalibe yi. Ah, ci taalibe koy boole ci taalibe même bu ci bokkul ma doon wax rek la rejoindre léegi. Mhm. te concept e taalibe lii la. Mhm. du leneen lu dul lii maanaam am na xalaatam bu rafet indi na ko wax na ko dañ koy e, étudier xool naka lañ koy mën a intégrer ba doxal ko. Mhm. lii la amul leneen. donc moo tax sànq ci début ci début wax bi mën na la yow mii tey bokk nga taalibaayam keneen ku xës ba gis concept bi parce que li ñuy bañ mooy def ko association moom mm-hmm. am mbumbaay am yeneen ak yeneen association yi ñun xam nañ ci am mm-hmm. xam nañ lépp li am ci association yi ay da ngay gis association yoo xamante ne ñu ngi ci dëkk bi ne dañuy jàppale doomu aadama mm-hmm. nit ki ñëw pour adhérer nga ne ko boo jëndul carte de membre temps ah, deux mille tuuti na boo jëndul carte de membre jëndoo t-shirt wala jëndoo lii doo bokk chaque mois nga cotiser lii ay dóorkat lañu waaw léegi nit kooku tey bu bëggee jàppale am yéene bi te amul doole bu mu participer kooku nu muy mm. def da nga koy génnee ci association bi mm. ñun loolu la ñuy bañ moo tax mënuma la wax ba léegi ñaata personne ñoo adhéré ay Canada ay Montréal ay tubaab yu xonk cur mm-hmm. ñu ngi ci biir concept bi mm-hmm. mm. di ci jàpp ci te ci naka da nga leen di expliquer ñu comprendre ki doon woote léegi nag Eh, am naa yaakaar ne xam xàmmee naa ko. waaw mu ne àndoon na ak waaw Kaolack ca dem Kaolack waaw. parce que dafa rejoindre kon seen activité yemul Dakar. déedéet. déedéet yéen yi li ñu dem ci région yi moo ëpp sax. li ñu dem Dakar donc yaa wax na ko sànq. li ma dem ci biti région yi. ak ñi ma àndal moo ëpp li ñu toog Dakar def fi def fi dara. ñaar région ngeen def bëri na. Euh, def nañ Saint-Louis def nañ Kaolack def nañ Fatick. def nañ euh, gosaas ak yeneen ak yeneen te ñu ngi prévoir nii nii nii génnaat fan yi incha allah donc euh, mu ngi noonu daal. rafet na. Dakar amul dara foofu lay tàmbalee. <laughs> comme ni mu ko waxee sànq. xam nga mi ngi koy wax moom li ci insister noo koy tuddee yow. ay businessman ay tappalekat ay caaxaankat. <laughs> mbaa du ma ñooñu rek a fi nekk mbaa du ma génn ñu dóor non man maa koy wax man Modou Fall Ablaye moom waxul loolu. <laughs> xoolal ñi fi nekk nii ay tappalekat nañ ay businessman ñoom sax jànguñu bay jàngale. du ñëpp nag. waaw am na ci ñu jàng. am na ci ñu jàng lool yor ay daara yu normal am na ci ñoo xam ni. daaray sëñ Mor Mbaye Cissé nañ génnee ñëw mm. mm. mm. ndakaaru samp daara am na ñu génnee daaray kokki ñëw ndakaaru samp daara am na ci ñu génnee longoor ñëw ndakaaru samp daara am na ci génnee saalum ñu ci daara yu mag a mag doon ay dongo yu mag ñëw ndakaaru samp daara mais ñooñu du ñu sas seen ay taalibe te du ñu leen du ñu leen bunduxatal maanaam du ñu leen toroxal léegi nag imaginer benn daara boo xamante ni si da nga naan euh, daara bi yëpp yëpp yëpp li fi nekk douze personnes la te boo leen toppee ba ci biir duñu ay sénégalais ñu tëj leen ci benn néeg comme la xewoon 2012. Mm. Euh, kër Mbay Fall. tëj xale yi ci néeg waa ji def leen tëj neuf personnes dem kër takkoom. ci ànd bi ñu doon kii ah. garab yoo bi ñu taaloon ci néeg bi. Mm. taal baraag bi neuf personnes yëpp dee. nga xam ne kër takkoom nañ ko fekk na ko pëkk pëkk na ko sa dongay dee nag ca takkoo ba mu jaaxaan fa di lekk ginaar <laughs> kooku ab sëriñ daara <laughs> laaj naa la ko dama laaj ndax kooku sëriñ daara la laaj ab saay-saay la saay-saay yu mel ni moom nag ñoo bari lool ci biir daara ji moo tax tout le temps nag dañ naan donga yi xam nga Ablaye dafa wax lu am solo mu ne bari na ñooy taseel ci ndakaaru du ñu ay taalibe bari na fooy dee daara du daara mu dem ci bu njëkkoon mu ne bu njëkkoon benn quartier benn daara te bu njëkkoon quartier bi daara bi fi daan nekk mi ngi doon gën a xumb jamonoy vacances mm-hmm. jamonoy vacances trois mois yi. Mhm. ñëpp dañ fay dénkaane seen i doom. Mhm. dama mas a wax ci ci ci ci benn rajo ma ni eh, sëriñu daara ñiy dénk seen i doom am fulla bu vacances jotee ku la sa doom nekkoon na dem ci àll ba. ñëwuñu pour seen doom yi jàng dañuy ñëw pour seen doom yi lakkal gi ñu leen lakkal ci kër gi ba teree leen a nelaw ñu mën a ut fuñ ko dénkaane te 3 mois yi mën lañu ci fay sax cinquante mille daleen leen koy jaral mhm. léegi nag yow sëriñ daara bi yaay am fayda comme kii arxuraan jaralu ko dara te arxuraan mooy téereb yàlla bi gën a kawe mm. arxuraan la la yàlla wax ni moom rek nga nga mën nga war a jàng fukki nit yu dajee doon ay jullit na ko ca kenn jàng mm. bu ko ca kenn jàngul fukki yëpp am nañ bàkkaar bu ko ca kenn jàngee bàkkaar bi wàcc na ñëpp mm. yow nga lànk amoo ci soxla ba vacances jot 3 mois nga bëgg a nelaw 3 mois yooyu tax nga jël sa doom yóbbul sëriñ bi dénk ko ko boo ko doon fay 100000 la sëriñ bi am fulay na la delloo ko mais dafa am ñoo xam ni comme ni ko Ablaye wax du boo dajale woon fukki gone ñëw leen ko ñu téye waa ñoom it am nañ mat gu toll ne 3 mois yëpp gone gi duñ ko jàngal aba jadda duñ ko jàngal aba tasa ja ko jàngal bisimilah rahmaan rahim gone gi daal day xëy si ñoom ba ngoon jot mu dem ca bal ba fu bali ci ba 3 mois yi ngeen di gone yi ngeen di dénkaane ci tuddee ay daara ci yenn yi ngeen tuddee ay daara mm. Mm. bu leen tari woon tariloo woon fatiya mënuñu koo tari xamuñu mm. dara seen xaalis da ngeen wàcc ndax yéen alxuraan ñoru leen yéen ñi dénkaane seen doom pa mois ngeen di sóob rek di nax yàlla alxuraan ñoru leen intéressé wu leen du seeni mbir ki alxuraan doon mbiram mooy ki nga xam ni bu fekkente ni jaar na ci tim yàggu ci ki alxuraan doon mbiram mooy ki nga xam ne bu fekkente ni ci jaaru ci mais gis na ni dongay li ñuy dund dafa tar dafa metti tax mu taxawal benn kuréel taxawal association ku ci mel ne Abdoulaye tey exemple bi yëpp ci moom laa koy joxe jóg ne day wattu dongay maanaam daf leen taxawu daf leen di jàppale waaye daf leen di dimbali. Mm-hmm. wëral boppam wër gu mu wër moo tax mu xam ni eh, Dakar daara yi bëri fi tey bu toogoon benn place rek. du mës mm. a gëm ni Ndakaaru amul amul daara. téeméeri taalibe ñoo tuddee ay taalibe cent personnes chaque jour kenn ku ci nekk indi cinq cent francs ñaata la par jour da ngay am cinquante mille par jour cinquante mille par jour euh, un mois bi ñaata la un million cinq cent sëriñ su baree bari ñu tuddee seen bopp ñu bari ci ay sëriñ noonu la ñuy def dañuy am nag soixante jabar nekk fi Dakar takk fi soixante femmes trente yi da nga leen takk ñu xam leen trente yi ay takk suuf la ñuy doon mm. bu ñu jógee guddal sikkin guddal xaftaan jàkk ji woote ñu jiitu fa naan la xaaral suulaay waxuñu dëgg bu ëllëgee bu état bi ne daara yi dañ ko war a defaraat ñooy njëkk a génn ci rajo beeg télé bi mm. naan dañuy xeex diine mm. état xeexoo diine da ngay xool saay-saay si nga segg leen ci biir daara ji jël ñi nga xam ne ñi ngi taxawu daara ñi ngi mm. dimbali daara ñi ngi jàppale daara nga financé leen dimbali leen accompagner leen te waxtu wu ko état di def waru cee fàtte ñu mel kuréel gu mel nii état dafa dafa complexe complexe état mooy lan day fekkee kuréel gi kuréel yi nga xamante ni sii ay tekkati dil nañ ay sàcc lañ ñooy dugal dorog ci réew mi ñooy ñooy jàppale góor jigéen ñi góor jigéen ñi leen di financé mais ñooñu ñooy nekk ci rajo ak télé yi di sóob di xaste di saaga di xuloo ñoo ñu la état di gën a ragal moo tax Ablaye ku mel ni yow sànq ne nga dañ la forcer rajo ak télé yi dañ la ko war a forcer nga di ca dem bu nekk ci dëgg ragal comme ñi nga xam ne ay tappalekat nañ ay saay-saay nañ ñoo ñeme média yi yow mi ne ci dëgg nekk ci li nga xam ne tey boo nee sóob mm. te bala ngaa xam ne bala nga xam ne doo nga ñoo mën a sot tey ñu demoon ba kenn bëgg la néewal doole ci li nga nekk boo waxoon ci rajo tey njuumte mm-hmm. kenn bëgg la néewal doole nga xam ne doo nga daaree ñoo mën a sot réseaux sociaux yëpp ñoo ko occupé ndax dañ dañoo xool ba jàpp ni nit ñi boole boolewuñ leen ci réew mi mm-hmm. ñoom ñu boole ci seen bopp ndax koomu réew mi yëpp ñoom la kon bu ñu gisee kenn ku taxaw rek taxaw ci seen wet pour jàppale ñi ci ñi ci suuf ñu mm-hmm. mag ñi dañuy taxaw temm pour man tey nga wax tey nga expliqué man la adhéré wu naa mm-hmm. te man bu ma fi génnee sama yeneen moroom yu mel ni man dinaa leen adhéré force mm-hmm. inchallah forcément dinañ dugg ci kuréel gii kon bu ragal rajo yi bu ragal télé yi yaa ni ci dëgg du ragal sax du ragal sax euh, bu ci tayee dem bokk ah. kon ma wax tayeel bul tayee dem ci rajo yi bul tayee dem ci télé yi yaa ne ci dëgg tappalekat yeeg góor jigéen yi fu ñu mënee ak fecckat ñu mënee occupé télé yeeg rajo yi yaa xayti yow miy liggéeyal alxuraan war nga mën rajo foofu laay teg sama baaraam ba keroog nga ñëwaat. <laughs> avocat ndongo daara yi. <laughs> waaw dafa mel ni tey dama am avocat. waaw sa avocat gi nii toog. dëgg la Abdoulaye am ngeen ay projet yoo leen di waajal. waaw am nañ ñëw ci li ñu deseel ci minute bëriwul bëriwul ba ñëw ci li nga xam ne moom ngeen di waajal seen projet yi. waaw déjà dafa comme ni ma ko waxee sànq am na projet yoo xamante ne ñu ngi koy waajal ci toujours ci biti Dakar. foo mm-hmm. xamante ne au fin fond du Sénégal comme on Euh, benn ci projet yi mooy am na dëkk boo xamante ne dañu contacter woon parce que dañu am problème mu jàkk donc benn euh, espace bu ndaw lañ leen fa amal rek comme niñ ko waa ji di waxee rek yi nga xam ne foofu la ñu war a dugal xaalis souvent nit ñi duñu fa dugal xaalis. Hmm. dañ koy préférer dugal koo feneen. donc ñooñu contacter woon nañ ñu pour ñu jàppale leen tabaxal leen jàkk ñoom am nañ terrain ba pare am nañ lépp. Hmm. beneen projet bi mooy. Euh, alphabétisation bi mu doon wax sànq xaw ma yaa ko doon wax xaw ma sëñ Maodo moo ko doon wax donc on est de mettre sur place benn kuréel boo xamante ne loolu mooy doon liggéeyam maanaam dem ci euh, yenn daara yi récupérer xale yi maanaam bu ñu jàngee ba benn heure bi dañ leen di yóbbu foofu ñu mottali seen jàng am na tamit ay inscription yu ñuy def chaque fin du mois euh safula chaque yu d'année dañuy inscrire ay xale yoo xamante ne ñu ngi ci daara bi mais souvent problème bi ñuy jàkkanteel foofu mooy euh, wax horaire bi heure bi ñuy jàngi. moo leen dul arrangé moo leen dul arrangé ndax ecole bi par force da nga fay nekk huit heures ba treize heures wala seize heures te foog nga jàng alxuraan tam. parce que mhm. ñu tamit lu ñu wax wax ay jullit lañ. Mhm. ay jullit lañ sànq mu ngi wax mais man dama jaar ci daara. man dama jaar ci daara man dama daan jàng ba wàccee heure nit ñi bu ñuy. bu ñuy ba vacances bu nit ñi di dem ay colonie de vacances ak yooyu sama yaay daf may jàpp ci loxo ne ma kaañ dem yóbbu ma daara te pourtant amoon na moyen yoo xamante ne mook sama papa bi ma jur amoon nañ moyen yoo xamante ne képp ku nekk ci kaw suuf li nga mënal sa doom mënal na ko mais ñoom dañ doon préféré yóbbu la nga xam luy àdduna mm-hmm. moo tax mam sànq ci yi nga doon wax am na ñoo xamante ne dëgg la dañuy dàq xale yi kër gi mm-hmm. pour ñu dem ñoom ñu noppalu mais am na si ñoo xamante ne ba léegi man xam naa ñu ñu bëri dañuy bëgg seen doom jàng ci lii mais xam tamit àdduna mhm. jàng jàng alxuraan mhm. donc yooyu yëpp ñu ngi ci ak yeneen projet yoo xamante ne ñu ngi ciy jàng am na koo xamante ne waroon na ñëw sax ànd ak man mais dafa am euh, gàllankoor kooku moo gën a mooy gën a liggéey ci wàllu projet yooyu moom mhm. xam naa bu fi toogoon dina la étaler lépp mën du ñàkk bés bu ngeen ko mënee invité rek moom tamit moom soxna si moom ci concept bi la bokk waaw ci concept bi la bokk moom it mu ngi ci biir bi am na solo ñu góor ak mhm. jigéen ay ànd ndax daara dafa baaxoo ndayu daara. Mhm. bu njëkk da doon am ndayu daara boo xam ne foofu ngay teg sa bool. Mhm. moo lay tibbal añ moo lay tibbal reer mooy fóot sa yére bu tilimee kooku moo doonoon sa ndayu daara dem ba yàgg ñu tuddee ko bàjjanu gox ndayu daara boobu moo indi bàjjanu gox. ci la laa Wade créé bàjjanu gox. léegi kon ku créé kuréel boo xamante ni si da ngay taxaw daara il nga am ay jigéen. yu doon nday daara don ay ay ay ay jigéen ñoo soxna yoo xamante ni si tout le temps ñoom ñoo mën a ñoo mën a euh, xuus ci biir donga daara bi ndax jigéen mooy jur mooy yaay. Mm. tey bu doon góoru kase da ngay xam ne lii du sori. Mm-hmm. mais tey buñ ko créé boole ko góor ak i jigéen ñu taxaw. Mm-hmm. da ngay daal di xam ni ah lii kat lu nar a dem la. te lu ñu waxtaane la te lu ñu teg ci yoon la mm-hmm. mm. ndax euh, bu njëkkoon daara yi li mu xamoon mooy ndey daara bu njëkkoon donga daaw gis ci mbedd muy taxawaalu Sylvie taalibe pire amul temps taalibe dëggantaan njaay amul jot. Mm. taalibe yi tey ndakaar dañuy agressé ay agresseur lañ. Mm. kar la far force da leen sarax boo leen saraxee juróom ñu sànni ko. cent franc ngay commencé jëm kaw ñu dem yóbbul ko seen sëriñu daara yi seen sëriñu daara yi ñoo naan leen dem leen agressé ji ñoom ñooy agresseurs yi ay wëyu lañ <laughs> ba pare nag bu état bi laalee ñu ne ko da ngay xeex diine mm. état xeexut diine yéen yéenay xeex diine yéen ñi nga xam ne da ngeen dugal fukki donga ak juróom ñaar fukki donga fanweeri donga di leen sas téeméer te du ngeen leen ci jëndal dàll du ngeen leen ci jëndal mbubb du ngeen leen ci jëndal tubay du ngeen leen ci jox ñu lekk mhm. seen njaboot ngeen yor dem di takk ay jigéen mhm. jigéen ju tas wala borom këram faatu ngeen takk ko di ko jox ca versement xale ya ay wayu ngeen <laughs> na état jëflanteeg yéen ba ñu xam ne état xeexul daara alxuraan dañ ko war a teg ci yoon mhm. daara dafa war a légitime bu légitimut nañ boole yëpp tëj lan moo gën a doonu caay-caay fekk tabax tabax ba àggagul nga jël ko tabax boo xam dañ ko tabax àggagul nga dem dugg fa fa ay ay ay taalibe mm. ñu fay fanaan di fa yendu nga takkal leen fa ay rido rek mm. yow dem ci sab takkoo nga ni <laughs> saay-saay nga fu la fekk na la jàpp Abdoulaye nga tàggatoo waaw <laughs> déjà Sylvie dama lay encore une fois remercier encore sëñ Modou moom moom xam naa ne léegi dama koy jox sax mu nekk président mm. taalibe ayam bi. <laughs> ok maa ngi sa ginnaaw non dama la koy jox dama la koy jox. mu nekk na na. Ah, kon jeex na jeex na gis nga affaire bàyyi nii. y' a problème Adama kon jeex na Sylvie yow sax da ngay de waaw ah, jeex na tàkk incha <laughs> donc balaa loolu dama bëgg a benn benn nit boo xamante ne moom saa yu ma waxee waxu euh, taalibe ayam moom da ciy jiitu. Mhm. bëggul ma tudd turam nag xam naa bu ma génnee dina ma duma waaye dinaa ko dinaa ko tudd. madame madame Gakou la tudd. Eh, du du du du du Gakou Balde nag. Mhm. waaw pour mu leer <laughs> kii benn eh, femme la boo xamante ni Liberté 5 la dëgg mais saa yu ma moom moo may woo sax naan ma waa xanaa doo organiser dara pour xale wala mu woo ma ne ma a ah, man de am naa fii ay couches yu dul jeex meew affaire yooyu dama bëgg nga jël ko yóbbul ma ko ci daara ci pouponnière bi tout le temps moom da ciy jiitu donc kooku bu ma ko remercier wul vraiment damay damay damay goree di mhm. donc la kooku laa bëggoon tudd ñeneen ñi tamit duma leen lim parce que ñu mu ngi noonu mhm. ñoom xam nañ seen bopp mais di remercier képp koo xamante ne déglu nga émission bi tey di la wax nii comme ni ko Modou Fall waxee rek affaire bi mu ngi nii mhm. daara la taalibe la ñun ñëpp xaj nañ ci waaw du association nag concept la concept bu ñu jàpp ne association la parce que am na ay kilifa yoo xam te leen dugal ci association. Mhm. ñun ni association yi di tëddee fi mu toll nii xam nañ ko donc euh, yàlla na yàlla dooli xéewal yi. Mhm. yàlla nañu yàlla may kàttan boo xamante ne lépp lu ñu sumb pour dimbali doomu aadama kese tax nag. Mhm. yàlla nañu ko yàlla mottali. waaw di leen remercier. Euh, di remercier tamit euh, maire euh, Gandiaye mhm. parce que moom moo ñu permettre keroog ñu mën a am euh, accès ci case des tout petits bi mhm. Pape Song di Diop la tudd accompagner ñu tamit ñëw teewee activités yi ñu doon def c'est très important mhm. parce que souvent di nga dem ci réew ci dëkk jàmbur nit ki dina nga dugg ba génn lépp li nga war a def nga def ko pour mu ñëw jàppale la wala mu ñëw sax teewee li ngay def mais du ko def doo gis benn autorité mais keroog moom déplacé wu na vraiment ñëw fekkee lu ñu doon def indi ci apportam te ubbil ñu ay buntam nañu heure bu ngeen bëggee tee ñëw man woo leen ma mën naa participer jàppale leen sax ba ci déplacement yeeg yooyu. pour ngeen mën a motale yéen yi. d'accord peut-être nga joxe say contact pour ku ci bëgg jàpp. waaw contact bi moom benn la rek 77 445 93 50. boobu la ñuy joxe. 77 445. 93 50. voilà ku bëgg jàpp rek ci concept bi. parce que dañuy bañ joxe numéro yu bëri. Mhm. affaire yi di tas parce que concept bi. am na comme ni ko euh, sëñ Modou Fall di waxee businessman yaa ngi ci biir dëkk bi dañuy jël dangay ngay xëy rek ñu ne la gis nañ taalibe ayam muy def benn affaire fële amul mhm. ñu lépp lu ñuy def même yoon bi lañ jël boobu ba léegi mhm. da ngay xëy sax ñu ne la dégg nañ kenn ku doon wax ci taalibe ayam ne moom moo ko créé moom moo koy doxal te araam xamuñu ko hmm. donc benn numéro bii lañ jël ñun ñëpp ñu d'accord ci ne hmm. moom la ñuy joxe d'accord waaw kon ko ci bëgg a jàpp rek mën na woote ci numéro boobu ñu ngi lay gërëm di la sant Modou Fall tàggatoo man sama tàggatoo tey madame Gakou mi mu wax te xaw ma ko laay gërëm hmm. ak moom <laughs> ak soxna yi mu ci àndal numéro bi 77 445 93 50 beneen wëyu bu leen jox beneen numéro saay saay la <laughs> mooy li gën a wóor mboolem nag maire boo seeti mu tëji buntam. Mhm. xamal ne ma ngay recevoir góor jigéen ñi. <laughs> maa ngi leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. merci avocat Talibé di gërëm Abdoulaye Dione mm. euh, borom concept euh, Talibé Ayam mm. di gërëm mboolem mbokk déglukat bi ñu doon bàyyi xel jamono ji di gërëm moo faal euh, page Facebook bi ak Adama mi féete woon ci cabine technique bi mbokk yi ñu leen jox dig daje mercredi bi di ñëw même heure même fréquence beneen invité beneen thème Babacar Ndiaye mi ngi ñëw léegi yéen dikkal yen ci xibaar.